يسر لي ميسر العسير مختار لي بلا مسير يسر لي ميسر العسير مختار لي بلا مسير ولا العين لسواي مدبرا بما على زهري يدوم دبرا محا توجه المكاره ليا باق حباب ذكره وهو ليا أنا رضيت وهو عني رادي بلا مكاره ولا أمرادي رد لغير جهة الشيطان من طيب الممر والأوطان فر لغير جهتي لعين يسوقها لغيرنا المعين هديتي من الإله والنبي كليتي صفت وصفت بي توفيق هاد قاده والإلهام قد ضيا ما له بهام بدت لي اليوم برب الغيب أعاذني ممن خلا وخيب لا يتوجه لنحوي متعب عني محت مكاره وتعب سعادتي بغير محو كتبت وكوني العبد الخديم قد ثبت شكر لي ميسر العسير مختاره لي بلا مسير امين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته جناو بنو سانت يالا جولي سي يونتي صلى الله عليه وسلم سانت سيرن توا نيغي نيانال شيخ محمد المنتقى يالا غنكو ياغال تا غنكو ويرال با ليغا خامني داكو ييني داغي سيرن توا ليپ مو ديفكو نمكو بغي ليپ اندك مان اك دي nuyu bokki jullit yëpp ak bokki talib yëpp tey am mbégte ci jataay bu tedd bii nga xamee ne ndigal lalu lu bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha jëm ci bokki talib yëpp rawatina bokki yi nga xam ne ñoo yëngu ci xasida yi te sëriñ Xamsatu nekk ci seen kilifa kon ñu ngi soññ ñëpp ci turu sëriñ Xamsatu ak ci kàddoom mboolem koo xam ne danga yëngu ci xasida yi ak noo ci mën a yëngoo dana ci biir dëkk bi moo xam danga tënku ci ak kuréel wala kuréel ga nekk kuréel gu yëkkati wala njàngum durus wala kuy jàng njàngum benn benn wala koo xam ne day bind xasida yi ak mépp mbooloo moo xam ne dafa ay jox xasida yi rek sëriñ Xamsatu nee na mi ngi lay woo ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha di ndigal li nga xamee ne da koo joxe muy ajjuma ji di ñëw ci ñu xëy ne ci xasida yi ak alquran ji yendoo ko ba julli jot ñu dem julli ji nekkaat ci ba takkusaan ñu doog a yeewee euh, sëriñ bi di soññee ni ko Cheikh Amadou Muntaxa joxe ndigal mooy bernde yi wàllu xéewal yi képp kuy ñëw noo ci mën a jàppee ak fànn gu mën doon nga def ko muy ay xéewal yoo xam ni da koy jox mbooloo mi nga xam ne ñoo daje di jëfe ndigalu sëriñ bi te na ma ko daa waxee rek képp kuy jëf lu baax katax mu man ko def moom moom ñoo bokk tuyaaba ja ki mana jang di jang ki mana bernde di bernde ño bokku jannatu yaba kon ñi ngi soññee ci jangum khasside yi ak eh, bernde yi tay ñaan ñu dajee ci ngërëmul seigne touba mom mi nga xamé né mom rek katax Cheikh Ahmadou Mountakha wote liggey bu tedd bi ak bëgg a jariñ mi def yépp ndax eh, xamna né ne eh, jangal qur'an ak zikrullah qasida yi te lepp boo ko boolee muy lenn moom rek moom a tax jariñ ci euh, sunu borom kon delloowaat nit ñi ci seen borom ak ñu fàttaliku sunu borom ñaan ko ci xéwal la ñu tedd yu màgg yu rëy yi rawatina la ci gën a jege mooy nawet bii ak lépp lu ci aju yàlla sottal ko loolu rek moo tax si amul mun taxaa joxe ndigal lii ndigal nag bu jógee ci kilifa gu mat la mu doon jëm ci ab surgaam wala ab taalibeem kon loola buntu ndimbal ak buntub tawféex ubbiku na kon taalibe bi ak surga bi li ko waral mooy def kem kattan ba jëfe ko na ko sëñ ba diglee ndax sëriñ bi moom joxe ndigal rek mooy war defam ab nag jëfe ndigal rek mooy war kon nag nañu ko fasoo te def ci sunu kem kattan da jàpp ne jëfe ndigal lii sunu aaju ci lay fajo tey ëllëg képp ku bëgg a jëriñu sëñ Tuubaa noonu rek ngay doxe mooy ndigal lu jug nga jàpp ne sa aajo ci ci lay fajo ni ko Cheikh Ibrahima Fall murid bu mag bu waxe bi ñuy def liggéeyu raay bii booba ay atam bari na waaye dafa ànd ak sëñ Modou Mbenda mu dawalal ko ba ci wetu Ndula mu wàcc laaj peel bi tibbu ci ay tibb eh, eh, eh, sànni ngir xamle ne ñu liggéeyal suñu Tuubaa mu di ko fekk kat te jëfu ca loole dara jël ko ba tey it ni nga xamee ne noonu la ko defoon Cheikh Modou Moustapha Fall rek ba se ba ba sëñ bi sante mbaar Cheikh Modou Moustapha Fall Cheikh Ibra di njëkkante yóbbu fay jumtuwaay sëñ bi laaj ñu mu doon ñu ne ko waagat Cheikh Ibra day ñëw fi indi ay jumtuwaay mu ne delloo leen jumtuwaay yi waxuma ko Modou Moustapha laa ko sant Cheikh Ibra ba ba mu ko yëgee dana ewaayi Moustapha ku xamoon ne boo amee doom mu dox sa digg sa sa digg ak jëfin maanaam liggéeyal Sëñ Tuubaa jar na bañ ko am kon liggéeyal Sëñ Tuubaa nañu xam fi nga xam fi la mën a yeggale nit ki ci digam ak borom wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh